Union. sant it taalibe yi di leen gërëm ngërëm loo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fenn fu mu mën a yem ngërëm loolee nag ci biir xolam la ko jël te it la yéene jëm mooy doole ngërëm la gannaaw bu mu leen santee ba noppi gërëm leen mi ñaan yàlla seen jëf ji yàlla na ko yàlla nangu ci barke Cheikh Ibra te bu ko nangoo yàlla na ko te dencal leen ko fa yàq yëgut bu loolu jalee doomam jii nga xam ne mooy Serigne Badara Fall nee na mi koy sant bu baax ba fa kanam yàlla ak yonantu ba ndax teraanga ji nga xam ne indil na ko ko seet na xol guyu te lim ci doon la ci doon bu fi niwutoon moom mi te yàlla teg ko ci doon wit ni mu koy jëfe la koy kon nag nee na moom moom ñoo ci bokk yem képp waaye li ci waru garam tem nangu ko jëf na ko ndax topp na ko topp gu mat sëkk te lépp lu mu am moo ki taalibeem jébbal na ko ko te ndigal lu ko jox du ca werante guddi du ca werante bëccëg te nam ko bëggee la koy amee kon nag nee mi ngi ñaan yàlla sama borom yàggal ko fi lool moom Cheikh Badara Fall bii bàyyam mii moo ma ko sant ni ma santal ma ko kon cant googu nag yal na nu ci laafaale ñun ñëpp ci barke Cheikh Ibra moom mi nga xam ne moo tax nuy jëf yal na ko yàlla nangul ñu yàgg ko fa fekk moom mii yàgg yëkkati sunu ja ak sunu ñàkk di ko jébal mu yàgg ko jébal waa Kër Sëñ ndax lii kat day loo xam ne lii lu mu fi fekkoon la Cheikh ci boppam moom la ko Sëñ Touba santoon Sëñ Touba di ko jëfe ba yàlla saa borom yi ba di ko jëfee ba yàlla dogal mu jóge fa ñu sës ci moom rek di ko jëfee ba mu agsi moom ci moom bii tey jii kon nag nee na jooje joojee fas na yéene day jëm kanam waaye du yellu gannaaw ndax Cheikh Badara Fall mii day li mu indi ren ji lam andi woon daaw li mu indi ren ji kopp fop te ñaan na yàlla bu àggee bu caagaatee am di ko ëppaat fop te fekk ko fi moom mii di bàyyi mu jébal ko ci xol bu sedd guyu sëriñ bi sëñ Bara Fall nee na sant na la bu baax gërëm na bu baax xolom sedd na guyu Fall yal na fi yàgg lool te yàgg fi ak taalibe yi yàgg fi suñu kanam ñu yàgg laa jébbal suñu ñaq ndax xam nañ ne yow yoonu siraatal mustaqima rek nga taxaw yoonu wasa maam Cheikh Ibrahima Fall taxawoon ca nga taxaw te fas nga yéene da nga koy jàll jënka jëmay kanam waaye dina ko doon la gannaaw kon Fall yal na nga fi yàgg lool te yàgg ñoo digal ñu yàgg a nangu sa ndigal yàgg a jëfe sa ndigal faal taalibe yi lii nag ab soññe la ci nun ab soññe la ci nun nag nan dellu laxasuwaay waat bu baax te góorgóorlu taalibe Baay Faal kat na ngeen seet ne moo gew geen ak gew geen ak gew nde ñoo yem du am ay xob mukk ndax nawu naan ba mandi bu sigee bu sa gisee aw xob dana ko wat kon nag nun Baay Faal yii buñ jëf ba naw suñ jëf te li ñuy jëf nañ ko xeeb te bu li lii te bu ndigal lee àggee nañ déglu leneen ndigal te xam ne nun ci ndigal rek la ñuy méwee amuñu julli amuñu koor amuñu natt muram koor amuñu dide asaka amuñu dara ndigal rek moom lañ yaakaar te ndigal nag mooy li am solo tey te mooy li am solo ëllëg nan ko boolee ak ak taalibe gu mat sëkk te xam ne taalibe googu mooy ñu jëriñ fii te moo ñu jëriñ jëm kon sëriñ bi nee na xolam sedd na guy yal na yàlla seen seen xol seriñ bi nee na mbooloo mii fi teew mii ngi ñaan ci barke Cheikh Ibrahima moom ni ñu fi teewe ren yal nañ ko fi teewaat bu déwénee te kenn bañ a manqué te saa borom dogal ñoom ci seen jëm bopp kenn koy na nga yokk ba yëg ko na nga yokk ba yëg ko nanu yokk ba yëg ko Fall lépp mën na ko sa darajey maam mën na ko yàlla nañu ko yalla defal ci barke Cheikh Ibrahima jërëjëf Fall alihi wa sahbihi wa sallima tasliman jërëjëfati sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina bokk ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci turu Seydina Ali Fall mi toog ak rakkam mbooleem seen rakk yi toog di jabotuk sëriñ Abdul Aziz Fallum sëñ Mor Talla sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen jërëjëfal ci liggéey bu mag bii nga xam ne ni ñu ngi ko àndoon mu doon liggéey boo xamante ne nii nag dara waralu ko lu dul di xeeñ seen tànki maam ya maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina jàmbaar jooju nga xam ne coow lee bari rek waaye ku mel ne moom bët mësagu koo gis nopp mësagu koo dégg te itam moom ci jëmmi boppam daan na wax ne a doom kaw suuf de ay caaxaan mën nañ fee dox waaye biir suuf dëgg rek a fay dox te ku fa àgg di nga xam ne dëgg gaa ngeeg sëñ Bamba te wane naa ko kon loolu waxi maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina la mu mel ne lii nu doon def nag daa bokk ci ndigali sëriñ Touba yi moo tax du ràpp mukk day gën di jëm kanam bu ngeen xoolee at mu jot day gën di yokk rek li ko waral du dara lu dul dafa bokk ci ndigali sëriñ Touba yi sëriñ tuubaa mi ngi ñëw njaare 1912 nekk fa ñetti at 1915 mu woolu fa maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ci yéeme gu seeni mbir yéeme ñoom ñaar bi mu ko fa wooloo mu ñëw maam Cheikh Ibra Fall ci njaareem fukki at ak juróom la fa sëriñ bi def 1927 mu jiitu si fii ci Touba maam Cheikh Ibra teg ci ñetti at yi ko fa sëriñ bi jiitoo woon moom itam def fa fukki at ak juróom jiitu si ko fekk si ko fii ci Touba fukki at ak juróom yooyu it la Cheikh Ibra toggal sëriñ Touba ay ndogu ndogu yooyu nag wax nañ ko waxati ko dañ koy fàttaleeti rekk maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridina nee na ñi woor day doom wenn weer lañu woor muy ñaar fukk ak juróom-ñeent mbaa fanweer bu kaamilee ba noppi nag di seet ndax yàlla nangul na leen koom déet nee na man nag doom sëñ Bamba daf maa defal sama ndogu yii bis bu ma ko toggee yóbbu ko am naa ci weer weeru mat sëkk wu ñu nangu ba mu wér na ma nangu ba mu wér ma ne nangu nañu ko kon nag ñu bëgg sëriñ bi wax ne bu leen faale ñi leen di fakkastal ak ñiy wax ak sànni xeer ak yooyu ñooñu ndéem wax lañu féetewoo yéen féetewoo leen jëf maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina dafa xam mbir ma na mu demee boo demee ci alquraanul karim suñ borom dafay wax ne al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuuna maanaam bis ba nga xam ne suñu borom dafay téye làmmiñ ndax nee na làmmiñ dafa mën a lay saxal cër yi ay làmmiñ ñuy wax la ñu doon def Cheikh Ibra daan ne ah doom li yàlla wax ñu ne ko waaw mu ne na cër yi sax ci jëfal sëñ Bamba boo lëggee lu ñuy lay muy dëgg kon Cheikh Ibra moom mu dégg alxuraanul karim ñu koy dégg dégg lu kenn dégg ko ci kon lii nu nekk nun li ma bëgg muy message boo xam damaa bëgg mu tasaaroo nun ay jaami yàlla lañ ñu bind ñu ci daraja yant yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gëm Serigne Touba ba yemale wuñ ko dara di liggéeyal Cheikh Ibrahima ku ci nga maandu ci ñun ñu jaami kenn liggéeynu kenn sunu fay yaakaaruñ ko ci ku dul yàlla jamono jii nag bu jotee da ngay gis fu nekk xeer yi di jóge di ñëw ci nun wallahi lazim loolu nag li mu leen di jural du dara lu dul woor ba ngoon jot war caa am yoon ñu jël yoon ba fayee ko Baay Faal yi nga sànni xeer dara jël ko ci ñun jaami yàlla lañ len ñu baag yàlla mi nu bind moom mu xiir ñu ci liggéeyal Serigne Touba moom Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina daan na wax ne addoom bu nit dawee jëm feneen baleen ko fa ngeen daw jëm ci sëñ Bamba ba ëllëg ba xam kenn dina leen taneem déet hmm. moom mi xam fi sëriñ Touba nekk ak la mu nekk ak ko yàlla nangul moom la nu daw jëm ci moom tax ba àdduna sosoo ba léegi moom rek la nu gisagul kilifa bu wax ne bu jóg taxaw ca njaareem taxaw bu wëlbatikoo wet gii ñu xool ko mu nopp wëlbatiku wet gii ñu xool ko mu taxaw daa yéen ñëpp gis ngeen ma ñu ne ko waaw Fall gis nañ la de mu ne waaw kay damay bañ ngeen jaawale ma ëllëg yombal xiyaam nii rekk laay mel bokk ma ci kilifa yi soppeeku man yàlla dogal na nii ma mel ci àdduna li lay mel ëllëg te daw ma fa benn responsabilité ku ma xool ba ne ma yow rek ma ne la mën a te dinaa la fa mënal ba àdduna sosoo ba léegi nit yàlla bu ñu tox bu wax loolu menum Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina la waaw waaw yàpp gi ñu koy yàpp nag dara lu dul nag toog ci sa ruq di sànni xeer dafa yomb lool mhm. kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax a ba sa sëñ Bara ñu ngi lay ziar te di la ñaanal suñu borom sa fan wéral sa cër moom mii daanaka dafa won ñëpp nu ñuy toppee moom sëñ Mor Talla won ñëpp nu ñuy toppee topp magam ji toppin wu rafet wu sell woo xam ne nii mujj na jéggi dayo sax wallahi azim sànq rek ba ñu koy ziyaare ji li mu wax ca wax ja moo di moom bu xëyee bu gontee gëstuwul lu ndigali sëñ bare ba fas ko yéenee def te pourtant day bu ber woon fee benn mbiri boppam itam du ko teree dox waaye xam na ne yoon wi toppante la mu topp ko toppi lu rafet yal na yàgg yal na sax te sunu borom yàggal leen fi yàggal seen rakk yu baax yi ba jëf ju ngeen jëfal seen waajur wii bu déwén saa ngeen def lu ko raw foofu ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mboolem ci këri Cheikh Ibrahima yi ñuy tojjandoogu daal ñu ngi ñaan ci màggug yàlla yal na yàlla nangul ñëpp fulal leen seen i jëf ba mu àgg fa faw xasuluñ jot ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa sëriñ bi ay kàddu yu mu ci bëgg a jàllale kon ñu teewlu ko rek ba xam bismillah ndax boo toogee ñoom waru ñoo amati kàddu nee na sa kàddu rek moo war a sax nga wax def leen nangam ñu topp loola jëf ko nee na waaye moom warta am kàddu ci kanamam ci sa kanam waaye baatum ndigal nag dañ koy fas jëfe rek. nee na jëfe rek la sant. nee na kon nag ñi ngi lay ziyaare bu baax. te di la ñaanal. di ci boolewaale soxna maam Fall mi nga xam ne. moo mag ci njabootug sëñ Aziz gi fi des fii mu toll nii. nee na suñ ko tuddee rek. tudd na ñépp xol bu sedd nag. munta paase xol bu sedd. ndax lii ñuy def. murid yi ak taalibe Cheikh yi rek ñoo ko jox. nee na murid yi ak taalibe maam Cheikh Ibra Fall yi rek ñoo leen ko jox. ndax buñ toogoon fee rek. ndax buñ toogoon fee rek. mënuñoo jëndug ginaar. mënuñoo jëndug ginaar. kon lu ñu def. kon lu ñu def. bañ ñu koy sante. bañ leen koy sante. wala ñu ñu koy gërëm. wala ñu ñu koy gërëm. nañ ko sante taalibe ndax ñoom kat. seetaanuñ leen. buñ ñu seetaanoon. kon lii du mën a am te nga ma man ma topp la waaye ñun ñii tamit fekkewul jamono yonent bi fekkewul jamono yi Serigne Touba fekkewul jamono yi maam Cheikh Ibra Fall kon nag su suñuy jamono suñuy jamono suñuy waajur lañu fi taseel suñuy waajur lañu ak yéen ñi kon ñu am dañ leen koy jox rek. loolu jàllee ci bu loolu jàllee itam. dafa am suñuy nawle yoo xam ne. ñoo bokk Cheikh Ibra Fall. ñu am ay cofeel ci ñoom. te cër bi ñu am. lañu am ci ñoom. muy sëñ Basiiru Fall nii moom sëriñ Talla Yaasin. ak sëñ Maodo Fall moom sëñ Saliou Fat Sow. sëñ Amdi Fall moom sëriñ Abdourahim Fall. sëñ Abdoulahat doomu Serigne Cheikh Mbacke Fall. Serigne maam Cheikh Sarr sëtu Cheikh Ibrahima Sarr Jazaaka. Serigne Djili Diouf. sëtu Cheikh Ibrahima Fall la. sëtu Lambaay lu ñu dégg mu xew ci kër gi. dañu dagg seen yitte yépp ñëw. sëñ maam Cheikh Mbodj mais. sëtu sëñ Modou Mbodj moom Cheikh Ibrahima maamam maam Cheikh Ibrahima Fall la ko defar. kon bu ñu bàyyee seen yitte yëpp. bokk ak ñoom lii. bokk ak kon war nañ leen sant ci kanamu ñëpp. ñi nga xam ne nag. ñi nga xam ne nag. ñoo bokk sëñ Abdoul Aziz Fall. muy sumay rakk. muy ay rakkam. dañ leen di sant. dañ leen di sant. di leen gërëm. di leen ñaanal. ndax kat. topp nañ leen niñ leen war a toppee. jàpp nañ leen niñ leen war jàppee. jàpp nañ leen niñ leen war a jàppee. koo ci woo téléphone. koo ci woo sant ko dara. sant ko dara. wala nga wax ko dara. balaa am jàmm. balaa am jàmm. la ko wax. dana ko def ni ko bëggee. te cër bi ñu am. moom lañu ñu am rek. kon nag mi ngi leen di sant bu baax. bu loolu jàllee itam. soññee a ab soññee mënut a ñàkk. ñun taalibe yi. ñun taalibe yi. nañ bu baax. te xam ne sëriñ bi du morom. xam ne sëriñ bi du moroom sëriñ Touba du morom. sëriñ Touba du morom. Cheikh Ibrahima Fall du morom. te kenn mënut a boppam. maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ne. yoon wi yoonu jëf la. du yoonu wax. ku la gën a bari coow. boo xoolee ca ba. wala la jëf. ku ci gën moo ciy gën a néew la jëf. dafa am nit ñoo xam ne nag. nit événement lañu. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. kër gi buñ fiy ñëw. kër gi buñ fiy ñëw. bis mu mel nii. nga xam ne ab daja dafiy am. mbooloo mi dajaloo. mbooloo mi dajaloo. lañu fiy ñëw. bu ñu ñëwee. ñooy gën a ëpp yëngu ci nit ñi. gën a ëpp yëngu ci nit ñi. te duñ jëf dara. te kon dee leen góorgóorlu. kon te xam ne kenn mënut a nax kenn. kenn mun a nax kenn. kenn ku nekk kenn la ngay def la ngay gis na ko. sëñ Touba gis na ko. maam Cheikh Ibra gis na ko. dafay wax ne. ndogu yii. ndogu yii. ak tabaski yii. ak lettre addiya yii. nga xam ne mooy warteefu Baye Fall. moom de nee na képp ku ci moom dootu la ci soññati. ndax. ndax. julli juróom ndax julli juróom dafa am. bu ñu noddee ca jàkka ja. bu ñu noddee ca jàkka ja. ki war a julli ji. xam na ne nodd na. xam na ne nodd na day dem julli ji te kenn du jaar ci di ko woo. nee na kenn du ñëw ci yow di la soññu naan la jógal julli bu tàkkusaan jotee kenn du la ko waxaat kon nañu bàyyi caaxaan yi bu waxtu jëfal moom Cheikh Rafal jotatee ñu jëfi waaye kenn ku nekk day toog sëñ bi woowu ko ma sëñ bi waxal ko ma dara. lu la sëñ bi sëriñ bi di wax. ñi nga xam ne ñooy ndawi sëriñ. ñi nga xam ne ñooy ndawi bi jiital leen. sëriñ bi jiital leen. di leen di soññeeloo. di leen di soññeeloo. lu ne ñu koy dégg. lu ne ñu ngi koy dégg. woo kenn. mu naan la doo sama sëriñ. yaakaaruma la. wala dinaa ko jox sëriñ bi. wala dinaa ko jox sëriñ bi. te kooku budul woon ak sëriñ bi doo xamante ne. ne moom. dafa am ñoo xam ne nag. dafa am ñoo nekk ci yoon wi. dañuy nekk ci yoon wi. bi. di dunde sëriñ bi. waaye dunduñu sëriñ bi. waaye dunduñu góor góor kon nañu góorgóorluwaat bu baax. te liggéey jaamu yàlla sax ci njub yéen góor yi jigéen ñi leen yàlla booleel. jigéen ñi leen yàlla booleel. ngeen di leen yërëm. di leen dimbali. di leen dimbali. di leen toppatoo. di leen toppatoo. di xam ne. di xam ne motuñu motuñu. jigéen joo xam ne nag. jigéen joo xam ne nag. dafa bàyyi kër ndeyam. dafa bàyyi kër ndeyam. bàyyi kër baayam. bàyyi ñu yëkkati ko jox la ko. ñu yëkkati la ko. loo mën ci yërmaane rek dee ko def sa diggante ak moom. yéen jigéen ñi tamit. ñi itam. ni ngeen fonke natt yii. ni ngeen fonke natt yii. ak tuur yii. ak tuur yii. bu ngeen ko fonke woon daayira sëriñ bi. bu ngeen ko fonke woon daayira sëriñ bi. dina baax lool. ku ci nekk. ku ci nekk. tuur sangam bu amee. tuur sangam bu amee. dat sangam nga naan la tuur ba. doo ko fàtte. nga la day la daayira. daayira nag dañ lay woo sax far soññ la ca. nga naan bu kii di dem ma yóbbante ko sama. nga naan xanaa bu kii nag kenn a nax kenn. kenn mënut kenn sëriñ bi nee na. waaw nee na nañ góorgóorluwaat bu baax. te jàpp kër gi te jàpp kër gi. te jàpp yoon te jàpp yoon sëriñ bi nag. sëriñ bi nag. Cheikh Mor lay sant bu baax. di gërëm di gërëm mbooloo mi yëpp xanaa dañuy wàcce foofu kàddu yi rek nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh